yëngootina ay sunu deret yëngootina sunu sidit yëngootina ñu jóg di way sang be safar terootina sunu deret yëngootina sunuy sidit yëngootina bu ñi jóg di way sang be tax nga mel saxaar kuy nar a dem na fa jaar kuy ñaani paas na seeti gaar ba baa bum nag banaan pexe ndegam da nga xeebi sa waaye wata yaa fa gaara seetal ma si sa xiyaat am looy joxe allahu saxaar doomay wata ku xam ne yàlla du fi ji angar góob sama ta jël ca bex bexi la ilaha illallah Cheikh Bamba tawlo Ibra Fall taw bay Moustapha diggante mër watak safa kuy ajo war fa la ilaha illallah Cheikh Bamba am nam faddulu Cheikh Ibra Fall am nam faddulu ku gëm naa faala faddulu kon am mu jëm di toro la ilaha yàlla nan aw seen tànki baay ba mujj doon seen baay ba mujj boole seen i gars yi amin ndax ñëppay texe Cheikh Ibra na wàcc na lu ma sa aajo faju na ba xëy na ñi ba arjana nan farlu tey indi joxe kenn mos la gis sa booy daawu daw ku koy mos loo ko jooy moo jara way te jara jooy ci àdduna mën a naxee déglul ma li la ay ndamam ba gaay yi delloo xam ay mbiram ba xol yi bëgg ba dellu léegi ragal yox yox jaaraama ndey sëy na mu njaay la soxna jaara yor diggante njukki ak njamati dan daan biteel yaa tax ñu jébalu sa faal njega yaaray pexe mbul ak sàq ko si gar dandaa faloo ko soli buur yaa tax ba jëne defe lay toxul nga pour mën daa a fexe yaa yab mbaaxante ko bor yaa tax ba xol ba fuur yaa tax mu sànni yotu nguur fab jëtë ngam ñi laaj pexe te xam ne mat naa yoru junjung fu mas a jëm gawale ñe naa kundu muy xat yi bàkk ciy gorong tey yaa tax ba Abdoulaye xaar taxaw ji bunti dafa xaar waaye fu li doon doom buur lu mos a wax buur la dalee maakal ba kajoor moo amoon seen i yaa tax ba soxna Penda Fall ak gën ci réeki laala Fall gën doomi soxna taal dina jëriñu ni doxe te ni seeni bàyyi moom feedar ba taalugul ko noom ku ma saana ku ma saana fekk ay jomanoom xolam ba daawar yox yoxi laa ilaha illallah yaa tax ba Abdoulaye ñaqib lam ndigal far na ko giir moo tabax na ay kër di joxe laa ilaha illallah te xam ne mat naa dox fi moom tey ji mu moom leeral na penko mook soowam lu yàqu dootu ñox ñox laa ilaha illallah Ndakaaru jàll ginnaaw yoonu saxaar ba naan Ndakaar Cheikh Ibra la ko doomi jaara may leral na bokk jaara tey way kaw da Cheikh Samba jaara may moo tax dënam bay bex la ilaha illallah ndand faal jàpp fa doomi ngoon a faal daf ko ñu lambul ñu taal tey ngir ngi neew moo fay fexe la ilaha illallah leeram nga sar bay ak ci Thiès ku ñëw mu duy la ba nga fees lu ñu ku ñuul ak ñu su xees ñëpp ay booba fa ngay bex la ilaha illallah sëriñ ba ñëw njulbal mu ñëw gàddaay këram bi te daw guddeeg bëccëg na mi do bamba xëy sàkkim pexe la ilaha illallah ñëpp gëlëm kenn xamul kuy sëriñam ku ne di nga daal dem xàddina sépp yi jax-jax yi mu daal di ngoy ci Moustapha ngir xam ne yoon na li Moustapha mag ñëpp dem moom mën na fa mës la toxoo koy yoxe ne wujj ab sangam Tuuba la togoon añam Bamba ko jiitaloo ñoo ñam diggante bépp gàgguy tax la ilaha illallah ma ngay doon ak tooli dërëm mi ñun bëgg junni dërëm gis na ne weesu même itam xam na room la noonu fexe la ilaha illallah sax xalu na koy ngërëm ridwaan tijil na koy kërëm góolo ay yaa ngi fi itam gis na room yor jaxe ngërëm la yonoon bay gërëm Ababacar ma jëkk gëm la Seexu Bambay gërëm Seex Ibra Faal mooy ñëkk a texe la ilaha illallah médaay ba yonoon bay takkal Ababacar ngir déggal Seexu Bambay takkal Seex Ibra Faal bi su texe allahu la ilaha illallah man ta yonoon bay salal Ababacar mayor parisol jël saadi xina tufal yàlla na ko Bambay di jox la ilaha illallah Moussa la wala fal di sàkku ngërëm yàlla na ko Seexu Bamba ful te boole ko gaay yi dëggal yoo xam ne kenn subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin bërëb bii nag mooy bërëbu maam Cheikh Ibrahima Fall ñun gëmuñu ku dut maam Cheikh Fall ëllëg yomal xiyaam lépp lu ñu séddale bu ko amoon ñun Fall bëgguñu moo doonoon jàmbari sëñ Bamba ji moo doonoon jàmbari sëñ Bamba ji maanaam joxe jëf ak ñaq ak ñuqi joxe ak bernde kon dañuy ñaan mbooloom ñabatu maam Cheikh Fall gépp rek yàlla na suñu borom yàlla yàgg leen fi di ñaan Cheikh Mountakha Bassirou yàlla na ko fi yàlla yàggal sëñ am ni Modou Menda Fall yàlla na ko fi yàlla yàggal ki fere sama jàmm moom mooy sëñ Dété mu sëriñ Cheikh Ngounda Fall man maay Cheikh Diagne dongob Cheikh Ngounda Fall di ñaan sëriñ Cheikh Ngounda Fall yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ci ndigal rek lan fi ñëwee barab maam Sali Fall dañ koy jaay maam Cheikh lay Fall nee na bakkan bu boo xam bu fekkee mooy tax nit yeggal yàlla nee na ku ko xam nag ma ko xamal man da xaw ma ko Fall nee na dara dañ koy maye waaye ñaq dañ koy jaay laay laa bi ñu si kër safara niiraan ba bañ ko safara niiraan ba moo ko fay moo fay safara niiraan ba milu laata ban daan jaamu moo ko moo ko daaneel moo dàq jinne ya moo tëye asamaan tax suuf mu taw a moo waral yàlla yërëm aadama ak awa moo waral yàlla di yërëm jaam yi ci barka muhammad rasulullah yar ni yiir ñu te buñu ñu réew te bu ñu boom te def suñu pos allahumma salli ala safanterooti na way sunu deret yëngooti na sunu sidit yëngooti na ñu jóg di way sang safar terooti na sunu deret yëngooti na sunu sidit yëngooti na bu ñu jóg di way sang